ñàkkul sax am na xëy na. waaw du ñàkk ñu ko doon bañ loo xëy na wala. waaw dëgg dëgg wax dëgg yàlla nag loolu mën naa la ko fiir dal ni am na ñi nga xam dañ ko doon di ko wax naan ko bu ko defee wala xaaral léegi et cetera. mais nag bi da ngaa résultat yi amatul li sikki sàkk. Mhm. du woon jaadu mu ko ne di bàyyi benn suspense. Mhm. li ci waroon moo di mu def ko euh, def communiqué avant may sax wax nga ni yëgal di maa ko maa ko yëgle daf maa ma waxee loolu. Euh, mu ne man nga man man nga mën nga ko mën nga ko yëgle nga ah. ko yëgle man dina ko def ñu ñu déggoo ci loolu ma def sama tweet euh quelques minutes ou quelques temps après hmm. mu def communiquer dal di def déclaration euh fekk woo na Bassirou Diomaye Faye euh, parce que yaa jamono yoy sa yoru woon numéro téléphone wax dëgg yalla biñu mm. waxanti mm. mm. après bi mu amé numéro bi bi ko amé ko amee ñu ko jàpp ñu ko jàppale mu jot ci numéro bi ci lako ko wo wax ak mom euh, daal di koy félicité très bien euh loolu responsabilité la euh, parce que nangu gi du ñak aussi il s'en est ouvert à d'autres hein, par rapport ak parti bi euh mouvance bi président euh, waxtaan na ceeg ñeneen parce que euh, man ci ñi nga xamante sax ñu euh, liggéey ci campagne ak ci directoire de campagne. Hmm. am na ci ñu ma ci o ni ma woy waxtaan nañoo ko sa waay ndax li mu nar nii la ko ci yenn anam la. ba wax ca sama la ma xalaat aussi ñoo ko wax ci seen xalaat. Mhm. ñoom ñëpp aussi wax dëgg yàlla ñi ma ci jot ñi ci jot euh, euh, kàddu gu jëm ci euh, dañ ko def dañ ko yeewanil ak ni koy defee xëy na ci wax discussion bi noonu la woon communiqué lay doon am déclaration lay doon ak cetera mais lu ci xew daal moo di mbir bi def nañ ko ci ni nga xam noonu lañ ko doon séntu mooy lu rafet. Euh, liy mbirum démocratie ak jéego yi nga xam ne ni képp kuy yëngu ci démocratie loolu noonu nga la war a doxale te noonu la demee loolu euh, day am lu muy mandargaal ci Sénégal. Mm-hmm. moo di bu ñu wotee dañuy xëy ku nekk dem liggéey. Mm-hmm. Euh, Sénégal seen élection weesu nañu foofu di dañuy xëy di xëccoo naan résultat yi baax naag baaxul wala dañ koo sàcc. loolu moom dafa ne kenn mootu ko wax ci réew mi euh, euh, depuis lu jiitu deux mille waxuma ba deux mille passé ba nëgë ni. Hmm. kon nag loolu li xew démb ak barki démb euh, loolu lay wund loolu lay tekki te hmm. defe ne taarixu Sénégal la ndamu Sénégal la. te hmm. rafet nañu suñu der ak rafet na ci ab nettali. très bien bala may continuer waxtaan yi ma def benn digression tuuti par rapport ak yenn conseils yi li ñu war a jàng ci àddina mooy ma jàmbal kuy wut conseil war nga wut ku lay ku lay ku lay yéene ay ay conseil ku la ñemee tam parce euh, kilifa yu bari dinañu dugg ci loo xam day yàq seen a woy ba faaw xëy na conseil yu bon ndax réew mi fi mu tolloon ku ne xam nga ni ku génnoon ci mbedd mi euh, dem dikk génn ci yeneen région yi euh, doo doo ni kenn lànka la lànka la nangu. Mm, waaw loolu nga wax dëgg la moo tax aussi kilifa day comme ni nga ko waxee day wut day wut conseil nga xam ne boo yaakaaree boo boo la wóoree ni boo jëflante ñoom duñ la jaay daañu la wax la nga xam ne mooy. mooy seen aqullahi taala ak li nga xam ne moo lay jëriñ di jëriñ euh, askan wi. Hmm. Euh, ñu mel noonu tamit wax dëgg yàlla. Euh, kuy hmm. kilifa war nga koo sàkku. te loolu ak ràññee la tamit. Hmm. et c'est valable pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye ah, ndax connaissant le sénégalais déjà sax am na ñuy xala transhumé <laughs> bien bien que ça me semble dépassé mais am na xam nga ñun daf ci am ci ñun du ñëpp. ñoo xam ne ils sont capables de tout quoi ñoom waaw mané nañu fii mané faa. ah loolu nag aussi ku nekk yaay xool li dal sa xel. Mhm. bu nag ki nga xamee ni eh, gis nga ko eh, lam xam mu ànd ak eh, Ablaye Wade ànd ak lu Diouf mhm. ànd ak Macky Sall tey mu xëy tey mel ni di woon moom. àndaat ak yow. Mhm. wax dëgg yàlla war ngaa dina ndax kii conviction am na ko ndax am na am na gëm-gëm. loolu aussi nag dëgg ku nekk yaay yor suñu yaa xam nooy nooy toje sa bopp jinax. dëgg la ku dee ki lay jaay neex dala ba lu mu la wax nga ànd ak moom gëmu ci say bët. Hmm. Euh, ba doo xool li nga xam ne moo nga jàpp ni mooy lu teggin wala lu yëfi gor. Hmm. dëgg dëgg dëgg kooku moom sa responsabilité la. dëgg la euh, Madiambal Diagne victoire bu président Bassirou Diomaye Faye euh, lan lan moo ci gën a déterminant ci ci ci Macky la ci ñàkk booloo waa APR la wala jeunesse bu taxaw ne basta doy na changement lañ bëgg. Euh, yëpp a ngi ci nag wax dëgg yàlla euh, li ma ci njëkk a nemmeeku moo di euh, changement am na ci askan wi bëggoon bëggoon soppiku bëggoon lu lu changer fi ñu ko teg wér na am wérut du ci jeunesse bi rek. parce que mm. boo xoolee carte électorale bi. Mm-hmm. du ndaw ñi rek ñoo voté pour Bassirou Diomaye Fay. Mm-hmm. Mm, ay na ay mukallaf ak ñu xam ni bari na fu ñu bokk wala fu ñu lëkkaloo. ñu voté ak Bassirou Diomaye Fay kon du jeunesse bi rek. xëy na euh, nguur gi di mu demee at yi ak xëy na jamono naqari na wala nit ñi bëgg nañoo euh, euh, jéem wala essayer lu bees tax na xëy na ñu woote Bassirou Diomaye fay loolu benn la te li koy firndeel. Mm. moo di boo xoolee élection législative yi ni gaa yi wotee ci élection pleine noonu la ñu wotee woon législative. ni ñu législative yi fa Benno Bokk Yaakaar ñàkkoon da koo ñàkk fam gañe woon la téye waaye nag boo xoolee tey écart bi gën naa xóot.

am na situation yi nga xam ne ni que xay na emprisonnement Bassirou Diomaye fay euh, ak waa Pastef xëy na am na buntu xataal bu nii ñoom askan wi gis nañ ko ba seen xool sot loolu ba mën nañ ko ci nemmeeku. Mhm. Euh, waaye tamit li poñ bi nga wax euh, APR moo gën a néewal dooleem candidat mhm. ndax dafa néewal dooleem candidat ndax jàppale ko. Mhm. gis nañ galgal ci bari teg nañ ci suñu bët loolu moom askan wi kenn nattable wu ko waaye tamit bi ci galgal tamit ñii gis nañ tamit dooleel dooleel ga nga xamee ni que coupe euh, adversaire yi euh, te ba tey sax démb ak bërki démb yaa ngi gis euh, li tubaab wax naan les langues se délient ni mm. yaa ngi wax ku ne di nettali fa nga jaar ak lañ la waxloo ak lañ la defloo mm-hmm. te nag lu ni fàng jarta jeex mm-hmm. gis nañ fii ay responsable ya nga xamee ni que yu mag la ñu nekk ci APR nañu euh, wane nañu euh, lu wér ni ko Bassirou Diomaye fay gagné wala keneen gagné moo leen gën a doon Amadou Ba gagné. Mhm. kon nag loolu bu dee ñi nga xam ne dañoo faral yow ñoo lay jëkk a fakkatal euh, néewal la dooleel dooleel say adversaire

Euh, booy seet sax à dànkaafu woon naa ci fan yële ci ginnaaw ci loolu naan leen waaw yéen man de li ma jaaxal moo di yéen yéen a ngi féewaloo ko ŋaayaloo ñi ngeen jàkkaar loolu am na ñoom nekk benn dànk hmm. euh, kon dina jafe ci yéen ngeen gañe man leen nag euh, bu fekkee nag yéen da ngeen di xeex seen bopp ba fexe jambur ba gagné wala ki farto yeen gagné koku de hmm. bu gagné japp leen ni mom du ngeen mëna ngorondo ak mom ndax te kat amna ñu ma andal amna ñu ni xeyna bu ay eh, ciir ñi seul rek ñoo ñoo cey gëna yey hmm. euh li wolé wax naan ku acc sa and nak bo démé andu keneen fekk borom tok ci mo ci am ndax te tay ñoom ñi nga xam ne dañoo bëgg a nekk directeur wala ñu bëgg a nekk ministre wala ñu bëgg a nekk lii wala laa mm. bu ñu fexee ba seen adversaire gagné buy joxee poste ministre directeur keneen la koy jox ku bokk ak moom wala waaye du ko du jëm seeti jàmbur ñu dañ ko jox man sama xel jàpp mu gàtt sama xel mu gàtt loolu jàpp bu fekkee ni foog nañ ni ab seddoo la euh. <laughs> maintenant ma jàmbal xam naa ni wax waxuñu lépp ah yëf yi euh, l'histoire il faut que ku mel ni yow ak ñeneen ak ñeneen bind ëllëg parce que am na lu xew ah, ci biir rang euh, benn bokk yaakaar précisément APR ak it diggante président Sall ak Amadou Ba tout ça am na am na ay lees waxul de ah non lees waxul moom wax dëgg yàlla moom El Hadj Assane ku la wax ne la amul am na lees waxul waxul la la am am na yooyu nii xëy na tegginuwul ñu di ko waxtaane wala du lu ñuy wax ci biiru ci ci ëtt. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee nag bon man yàlla def na euh, président Macky Sall <laughs> jege naa ko am Amadou Ba jege naa ko. Mhm. Euh, damay waxtaan ak ñoom ñëpp. kon lu ci nekk am na ci loolu ni xam naa ko ci du ni lépp nag laa xam nag. wax dëgg mhm. yàlla. waaye xam naa ci pàcc boobu nii xëy na dama koy def mu nekk sama bàmmeelu biir. Euh, euh, mm. ci li xew euh, xëy na ñu gënalul ñu gënalul leen ci kenn ci ñoom. Mm. waaye nag li xew tey li ñu wax naan bu ndox tuuru an bàq moo des. Mm. yàq am na ci yàqalante am na ci. loolu nag xëy na réccu am na ci tamit. bi li bi lépp xewee. mais xëy na aussi nag léeg-léeg aussi lu ci lu bari luy xew. Mm-hmm. léeg dañuy fàtte dogalu bi yàlla xëy na li tubaab bi wax naan les voies du Seigneur sont impénétrables. Mm-hmm. na bu amul woon. xëy na Bassirou Diomaye Faye du nekk président de la République du Sénégal mhm. te xëy na yàlla nam moo nen moo ko war a nekk président de la République du Sénégal kon xëy na moo tax yàlla jaarale ko foofu wala euh, yenn galgal yi wala mhm. yenn jafe-jafe yi mu am ci yàlla kay ko kay c'est clair. destin mm. nit ku ne ci ñun il est déjà mm. tracé. Euh, moo mm. aussi muy aji politique di journaliste di di simple militant iman baax ci doomu aadama as tout sax ndax dafay tax nga gëm sa bop dal xam nga top nit rek di wagar wagar yi wala diw ak diw xuloo nañ wala juboo nañ du du du l'importance l'importance euh, jambal de ah. renforcer nos institutions suñu institutions yi bu leen renforcer ñu am plus de démocratie xex ak guerre et tout mais nit ku fi ñew ak say humeur suñu yoon newul ci yow gis nga Sénégal tey li ko sauvé nii mooy ay institution yu taxaw ndax bi fi envoyé renvoyé élection yi bu fekkoon conseil constitutionnel taxawul woon mën a jël décision ba nga xam ni président de la république ciy tënku. Hmm. kon élection yi duñ ko def le 24 mars bi passé kon Bassirou Diomaye Faye du falu tey kon lu ngay wax ni moo ci am solo il faut ay institution taxaw Barack Obama ñëwoon na fi ni Afrique l' Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais de d'institutions fortes. Hmm. mooy dëgg. Hmm. Euh, gis nga wax naa ko fii ci sama benn chronique. ma ni tey li Sénégal mooy euh, lundi lundi bi ma defee benn ko nit ci élection yi dama ni. Hmm. Sénégal li mu war a sant yàlla mooy am institution yu taxaw. Hmm. ndaxte institution yi wane nañu ni lu président bari doole bari doole mënut a euh, def loolu ni euh, dëppoowul ak li nga xam ne mooy charte réew mi ak kuréel yi ñu fi tegal pour ñu sàmm ko. Euh, ma joxe ci kaa ni Ablaye Wade bëggoon na ko fee def. charte hmm. réew mi yal euh, salfaañe ko. wala yàq ay élection wala defee ko nulul noona hmm. ñu ni ko taxawal. comme aussi Macky Sall ba fi defee la nga xamee ne que conseil jàpp na ni du noonu ci renvoyer élection yi mu ne ko taxawal. Hmm. kon loolu dafa am ay kuréel yooyu nii dafa am solo ci am réew.

médias yi taxawewuñ nañu waroon taxawe mooy def seen liggéey dañ koo woon defee démb ak bërki démb résultat yi génn ci euh, urne yi ñu joxe ko mm-hmm. ba nga xam ne askan yëpp ciy tegaloo seen bët kon defe naa ne lu ne mën na fexe loolu amu fa mm-hmm. gis nañ la fa mujj na mu na mu mujj na mu na mu mujjee kon nag tey lu mel nii du di boo koy wax sax day nag da ngay da nga koy bàkkoo di ko tiitaroo mm-hmm. waaye Sénégal am na lu ni téye na ko ba pare da koo wër di ko gën a jamale kanam man dama jàpp ne amul benn démocratie ci àddina mu gën a kowe démocratie Sénégal am na la nga xam ne bi ñu koy seet suñu biir nag ñu neex wala dañ ko nañ ko xeeb mm-hmm. waaye lay ñuul wala la cay ñagas ci suñu démocratie lu ko raw mi ngi ci deneen réew yi démocratie mm-hmm. ay réew yi nga xam ne dañu exemple kon nag ma dama bëggatu yëpp aussi tey man awma complexe jàpp ni ko Sénégal ci démocratie yi gën a avancé ci àddina bi la bokk mm-hmm. te loolu aussi il faut que ñun ñu nangu ko te xam nga bu ñu xeeb suñu bopp tamit

Euh, yitte république euh, ku ko nar a jalgati it nga dénoncé ko ak fa nga ko war a dénoncé ak ku mën a ne ci bopp réew mi ak régime bu mën a ñëw. Euh, loolu El Hadj ku nekk yaay natt sa bopp te wutal sa bopp weg nu ñu la wegee ak wutal sa bopp nawle. Mhm. boo ye boo joxul sa bopp cër wegoo sa bopp. wala joxoo sa bopp daraja dañ ni wax dañ la ko kenn ci wax la ko mën a nangul doo am cër ba. Mhm. dama da ngay respecté sa bopp ba pare nit ñi soog laa mën hmm. a respecté loolu wax dëgg yàlla mbiru do mbiru mbiru mbiru nit la mbiru nit la kon comportement lah ya hmm. lah, lah. yi hmm. eh, nga xam ne moom nga war a am boo ko sekkee ak nit doo war a koo mën a may bunt bu mu la yebee da nga ko war a mën a bay xëy na lu ngeen jaxasoo jaxoo loolu jege jege war nga ko mën a woon fulle ak fayda ak dëggu ga nga xamee dina xam ni nga kat yow mii kat li nga nekk xam nga ni ay principe la ndaxte gis nga tey li lay may loolu mooy nga amal nit ki rapport boobu nii tey dina xam ne que yow mii li nga koy wax du sa du du lu ko neex a tax nga koy wala du sa bakkan a tax nga koy wala du ay intérêt tax nga koy wax da nga koy wax ndax day sax doon sa aqulahi taala loolu amul chef d'état bu ko soxlawul ci àddina mm-hmm. amul chef d'état bu ko soxlawul ci àddina gis nga dama lay jox benn exemple euh, dama koy jële ci président Ablaye Wade xam nga tey dama lay jox benn exemple am na ay ñolti ñolti yi doxoon sama diggante Ablaye Wade deux mille quatre ak yooyu mm-hmm. mais ba looloo ba mu demee ba am xëy na am na lu mu seetlu mm-hmm. bokkoon naa ci ña nga xam ne ni bari na loolu nii def loon naa kooku ci loolu nii lu koy jëriñ la wala luy jëriñ réew wala luy jëriñ bitim réew mhm. am na ay collaborateur ñi nga ne xam nañ ko ndax dañ koo fekkee mhm. euh, am xam nga loolu dina di boo ko mayee sa bopp dina tax boo ko boo ko ne ah lii kat mu xam mu bàyyi xel ci li ko wax mhm. hmm? euh, dem nañu ba nga xamee ne euh, maa ngi lay fàttali xëy na su du ma ko faral di wax tey laa ko mos a wax président Wade bind na ma ba nga xamee ni que mooy bi sëñ Salim Mbacké rahmatullah alayhi génne làqoo mhm. bind na ma lettre lettre de condoléance jaale a ko mhm. booba Habib Sy moom moo nekkoon directeur de de cabinet mhm. xam nga loolu nit ki ak weg la yaakaar defal na ko Sénégal yëpp mais loolu yaa koy may sa bopp nit ki mën ngeen a juboo sax waaye nag mu am ci bu mu la jox mu nawloo la te loolu moo ci am solo ak nawloo doomu aadama bi rapport ngeen am ngeen nawloonte loolu nag ku nekk yaa koy may sa bopp. dëgg la maintenant euh, nekk euh, kilifa tam yombul de xam nga ñun généralement suñu njiit yi euh, à quelque niveau que ça puisse être nag du rek ci niveau présidentiel. Mm. ba ci niveau agence ak niveau entreprise ak feneen ak ministre ak yooyu dañu bëgg daraja tellement que dañuy fàtte principe bi tax a jóg daraja ji maanaam bu fekkee yow pare pour sacrifier sa jëmmi bopp. lu may da nga def focus ci sa jëmm bopp sa doo fi bàyyi benn woy waaw <laughs> ah, loolu loolu am na gis nga mais El Hadj Assane gis nga léeg-léeg euh, ak li fi nit la rek kenn matul di nga wax si xëy nit ki ngeen jege woon loolu sa léeg-léeg xëy mu dàmmal la xef mhm. ndax li nga ko wax neexu ko <laughs> ah, ah, wala ñu dikk ni ko amee mais sa waa ji Assane laa moom dégg nga ni mu wax de wala ni mu defee mais bu dee bu bu nit foofu laay waxee c'est-à-dire xam nga kilifa kilifa gu mat day du nekk benn nopp déjà nga nekk benn nopp rek mooy yow sa bopp matadi nga. ah parce que loolu aussi. Ah, kilifa gu euh, mat du nekk benn nopp ci ay qualité kilifa la war a doon. <laughs> gis nga dafa zik léeg-léeg nga dikk comme par exemple lu mel noonu maa ngi koy wax di retaa. <laughs> nettalikat euh, bu <laughs> nettalikat bu wax maa ngi fàttaliku euh, léeg-léeg kenn daal di fàq euh, ci jamono kii di ko hmm. ah, ah, ah gis nga sa votre ami la gis nga li mu bind de wala gis nga li mu wax. fekk xëy na sax moom avant mu fay àgg kooku yëg na yëg hmm. na na ma wax wala la ma. position ay yàqkat lañ. yàqkat yi ñoo bari. loolu moom du ci ñàkk. moo tax ma ne il faut que gis nga euh, ya yàlla du def ku nekk njiit de. waaw mm-hmm. bu loo ko defee rek am na lu muy xaar euh, comme mission comme sacerdoce nga taxawee ko sinon moom ci boobu mi la sàkk moo lay mujj xeeb sax. xam naa mm-hmm. ñu mu baal ma ci waxin wi parce que parmi dix-huit million de sénégalais nga tànn kii ne ko ministre wala kii yow euh, direction nangam wala yow président mm-hmm. nga gis ko yow mi ko sàkk muy doxalee doxalinu mala na ma yàlla baal di nga ko mujj sax jéppi gis nga El Hadj Assane boo dikkee bëgg a def nit ki di ko wax la nga bakkanam rek la. Mhm. jàppal ni lu cër bu mu la mën di joxit xamal ne xeeb na la. da lay xeeb da lay xamal ne xeeb na la. Mhm. léegi au delà au delà de de de nos euh, euh, humbles personnes. Euh, mm. le travail est ce que du ñu gën a jàngal sénégalais ñu dem liggéeyi parce que da ngay gis nit ñi aussi dañoo bëgg daal toog muy dox ni ko xale yi waxee sax loolu dafa war a jeex ci réew mi nit ñi nañ wuti métier ca liggéeyi bu ko defee dafa lay permettre sax nga am ay principe am am looy bañ ak loolu bañ sàmm sa ngor sàmm sa diine. Ah, ah, euh, loolu moom euh, gis nga El Hadj Assane dafa daan ni que euh, xëy na li ñuy xaar ci président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi muy tegal xëy na loolu lu ci ëpp solo la. Mm-hmm. ñaax nit ñu liggéey ay ndaw ya nga xam ne dañuy bëgg di toog duñu jéem a def dara. Mm-hmm. wala bëgguñoo def dara. Mm-hmm. parce que loolu aussi moo fi am. di ku nanguwul jàng métier nanguwoo jàng école nanguwoo futeeku liggéey te bëgg sa soxla faju wax dëgg yàlla. yaakaar naa ni du yomb. ndax koo fi gis mu am teranga ba El Hadj Assane dañu waxante rek ku nekk sa bopp doy na la tegtal mhm. koo fi gis mu am lu ñu mën a ñee wala lu ñu mën a xemmem bu la waxee fa mu jaar ak na mu ak ak la mu daj ci àddina ah, nga nawloo ko mhm. eh, àddina dara xëyul sotti mm, dara xëyul sotti dara xëyul sotti mm. Mm, dëgg la donc euh, fondamentaux yooyu daal il faut ñu revenir ci et puis di bàyyi xel rek bu ko defee xalaat nga ay ay xeetu chasse aux sorcières de toutes les façons ñi ko fi def yëpp boo seetoo après ils ont été chassés ah bon écoutez xëy na nag loolu moom wax dëgg yàlla ku nekk nag yaa xool nooy gouverner. bu mhm. dee da nga jàpp ni que gouverner xëy na chasse aux sorcières la wala da nga am loo war a jubbanti mhm. euh, kooku sa responsabilité la. Mhm. parce que aussi euh, xëy na am na loo wax say électeur am na loo xaar ak loo mën am de point de vue là franchement man du ma ciy juger kenn ah. Euh, damay xaar ba xool loolu acte yoo posé mais nag ak lu ci man def na ko teg ci yoon. parce que am réew bu dee réew bi moom ci yoon lay dox rek. Mhm. Euh, teg ko ci yoon teg ko ci charte yi nga xam ne yoon tëral na ko ku nekk nga jox ko lii àqam euh, lii àq yow mi tamit nga jox ko ko man loolu awma ci vraiment problème. Mhm. li may xalaat dal moo di que ku nekk nag yaay xool politique bi ngay définir ak noo koy définir ak lan nga mhm. ciy séentu. ak lan nga ciy xaar. dëgg la. très bien mm-hmm. mais l'essentiel, mom euh, sam nañ ko parce que mo mo gën niko niko ci société civile bi pétrole gën gaz mo gën wurus moy jamm réew mi euh, kalante gi ci réew mi ji gi. Euh, mm-hmm. sunu kër diiné yu yi sunu kilifa yu bax yi mom na ñi war am fulay ak ku fi falu président mom. euh jaru sax dara parce que ñi dañ la pour dem gamu ji wala ñu xaar la pour magali, mm-hmm. xaaru ñun sëriñ ak la ak sunu kilifa yu bax yi ñun président dégluwuñ ci euh, juge dégluwuñ ci magistrat. Mhm. voilà voilà. Euh, loolu moom dëgg-dëgg defe naa Sénégal xanaa ku ne war na ko nangul. Mhm. Euh, mooy nit ñi réew mu nit ñi moom seen bopp. Mhm. Ah, nit ñi moom lañuy bëgga bëgg a di ko di ko wax dañ ko def ci anam yi anam yi leen soob. loolu kenn mënu ko fi ci ci réew mi. li ci des nag moo di xëy na aussi ay nit boo leen di jiite am na loo loo leen di tane. ndax boo leen jàbbootee am na xëy na noo war a taxawee ak ñoom. kon lañ seen bëgg ba seen Euh, yéene ak yaakaar ja am ci yow aussi nga mm. sàmm ko ak ñoom euh, yorum réew nag yombut euh, daal laaj expérience mm. daa laaj xam-xam daa laaj xalaat daa laaj laaj na tamit laa laaj diisoo laaj na jàppale tamit nit ñi nit ñi seen bopp tamit jàppale la mm. Sénégal aussi parce que élection nañu waxante nañ lu ne mais pour man aussi nag war nañoo nag bàyyi nag nit ñi liggéey nag

nii laay doxale nii lay doxalee mm. su ko defee nag bu dox bu bu doxut nag am ku nekk am nga sañ-sañ ne lii doxut waaye nag mënoo dikk euh, jugé mm. nit ki wala nga condamné ko te xamagoo lu muy lu mu nar ak lu muy indi mm-hmm. euh, defe naa ne ko aussi war nañ ci am sago ci côté boobu mais dama bëggoon dellu ci li nga wax ci waxu jàmm euh, mm-hmm. ni Sénégal jàmm la am ak xëy na am nañu pétrole ak gaz ñu ngi koy séntu mais tey Sénégal bu taxawee ba nëga ni climat de sérénité de paix boobu fi am ak démocratie bi moo ñu ko may ba suñu partenaire di ñu mën a jàppale bu loolu nag bu fi jógee moom la dal ñaan ñi daañu dal te mm-hmm. yàlla bu mu fi jógee mm-hmm. mm-hmm. nanu am fu lay fayda ba nga xamee ni système bi nga xam ne am nañ ko euh, tey buñ ne élection Sénégal nit ñi xëy itam te di xëy élection balaa guddi ñu xam ku gagné la lendemain népp xëy liggéey euh, ci jàmm ak salaam ka nga bokkal bureau bokku leen waaye du ngeen mbéjante du ngeen màttante bu ngeen dikkee ku nekk tooñ sa morom ni ko sa candidat gagné na wala maa gagné ak nii mu demee euh, amul njëg kon nag dañu am fu lay fay de xa ne ba loolu du fi jóg ñu sàmm ko très bien mm. di ko ñaanal eh, ndam lu rëy moom président basiru jomay fay di sant bu baax président Macky Sall ci jumtukaay yi nga xam ne moo gouvernement yi boobaa ak léegi banañ ko fi parce que loolu tamit eh, dafa eh, vraiment valeur ajoutée bu am solo la ci ci ku bëgg a jëmale réew kanam voilà hmm. ñu ñu leen di ñaanal ñom ñëpp jàmm ah. Hmm. ak euh, les acteurs yu seqoon jongante bi ci nangu ñom ñëpp s'en sen défaite euh, li yalla dogal Amadou Ba euh, Idriss ak tout le monde professeur Daouda Ndiaye et ku lim juum quoi. Hmm. <laughs> Madiambal ma ngi lay sant bu baax. en tout cas dila gërëm yow tam ci sa contribution parce que taxaway journaliste mom c'est juste rek pour renforcer démocratie ci réew. c' juste sur des principes pas ay tour débat débat bi ma semble moi un peu pas du tout intéressant ci walu ay président président la mu sol bi yére tout ça nga que ni c'est un débat pertinent. non mais ça euh, euh, ça aussi image euh, <laughs> toujours Amna na solo. ci en communication en communication mhm. Amna solo ci euh, ay erreur de début la. Mmh. Hein? Mmh. Euh, il faut que ñu ay dañ ko corriger parce que aussi ñom wax dëgg yàlla aussi il faut mmh. un peu d'indulgence euh, par président Bassir Diomaye Faye ni mu jëlee réew mi pare wul pare préparé wul woon. fàggandikuwul woon xam nga kuy booy am nañu xam bu ñu demee élection sax dañuy jënd seen i costume yu bees ak seen i ñawlu seen i basin ak yooyu yëpp. defar wala am lu ñu waajal seen bopp. Hein, même ci campagne bi. mais ni mu ni mu duggee ci campagne bi ak ni mu ci ñëwee. ak ni mu faloo président dëgg dëgg am na. Euh, image ba nga xam ne laaj nañu tëggaat ko ndaxte aussi ku nekk bëgg nga sa njiitu réew di mën a incarner am mm. réew ci ay ay hmm. ay ay ay ay ay naataangoom. Euh, euh, loolu vraiment les instances hmm. dafa am ay ñu xam seen liggéey la. il faut que hmm. ñooñu taxaw ci euh, ci nu gën a gaawee aussi nag parce que boo nekkee chef d'état. bis bu yàlla saak yaa ngi commencé léegi nga ni dem na France dem na. Amérique loolu dinañ dina ko am ah, comme tout président. voilà exactement donc. <laughs> gars dé démb bi ñëpp nag fi la ñu fekk ah, ba ci président Wade bañ koy jëli. voilà <laughs> exactement maa ngi fàttaliku président Wade moom nga yow mas na mas na. comme suñu maam la quoi masna fay namé ben ministre dal di ni gaay bala ngeen ko won journaliste nak dem len ngeen yobbu ko mu mu mu watu ta ngeen yobbu ko ci ci pap far ami buti mu mutul koy seet ko yeb ku nek am nga jaar jaar ku am nga demb deug la deug la boto il faut aussi que ñun ñi japp ni que tay leg leg di leg leg buñ ma gëdé won sama photo ba nga xamé ni ya 30 ans ya 40 ans gaay yeb gaay yeb wala bu ko bëggono bu ko gisson fo dama koy jënd dang koy jënd ta manam ñu am habitude di focus ci farata bay di di yeen say sunna après quoi nit ñi détails ak wax ju bari ji ak c'est vrai que nak euh, nouvelle technologie de ci jouer mais je pense dal jeuf a gën wax ci wax ji vraiment ampleur bi jégg na dayo Sénégal mm. dañu ci ba paré bu kan wax ma jambal dafa am lu nuy wax ak lu nuy bàyyi aw dess am lo xamni ni mm. biir néeg lañ koy waxtané am lo xamni ci ëtt bi am lo xam ci mbedd mi mais légui nit ñi il parle de tout et, et n'importe où et puis dëgg-dëgg dëgg kilifa aussi dañ koy wormaal. sa mhm. kilifa mhm. suuf sa kilifam réew boo ko wormaalu kan ndax naka la ko keneen di wormaale. Mhm. Ah? il faut aussi wax ji di tegginu. dëgg la ah? il faut wax ji di tegginu. am na solo gis nga tey boo dikkee yow Assane. sa carte même poids la ko sama bos même poids la ko sa technicien wala ak ka ngay dajal ci mbedd bi. kon bu fekkee ña ëpp ci réew mi kii la ñuy jox baat. na nga respecté sa voix nga respecté voix ñooñu mm-hmm. jàpp ni que kon kii doy nañu pour kilifa nañ ko def kilifa ndax tey bu sa nga tàmmoon kilifa ëppoon ëppoon ay baat mooy nekk baat mooy nekk kilifa gi da sàkk kon ñeen yi war maal ko jox ko mm. cër wekk ko mm-hmm. kon loolu aussi franchement ay débat de personnes yooyu mm-hmm. dañ ko teg suuf li ñu war a jubbanti jubbanti ko aussi mm-hmm. parce que tey Sénégal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul tey bu ñu dikkoon am président ba nga xamee bu demee at dëmb à la à l'étranger kenn du ko déglu wala mm. ñu koy suufanteel bu ko mm. dégg mu naqari hmm? la tey équipe nationale sax bu demee a a tàccu ne vive Sénégal am fierté. dëgg la loolu il faut aussi que ñu nangu ko. Euh, ce n'est pas parce que nag du man wala du sama nit war naa tax que nga bëgg a xarab lële. Euh, kilifa kilifa la. man day wax du yàlla noonu laa ko

jaale bu baax umma islaam bi yëpp njabootu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu tàmbale ko ci xalifa bu tedd bi Serigne Babacar Sy Mansour euh, sama wasila sama soppe bi sama xarit euh, sama wayjur sëriñ Maodo Sy Dabakh ci génnuk àddina euh, rakkam ji baax ji suñu sang ba maam Ousmane Sy Dabakh di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xaari ko aljanna mu xippee firdawsi ci weti Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ci weti baayam ju tedd ja Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh maa ngi koy jaale xadara bi yëpp ak mboolem julliti Sénégal Diallo Njabotou Mamadou Yatta Say euh, nekkoon candidat euh, déclaré ci élection yi jaar na yoon wi jaar ci yenen émission euh, nit ko xamni bo boo defee ak moom waxtu rek xam xam xam niteem macha allah yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam euh, encore une fois daal di ñaan jàmm ci Sénégal di ñaanal ñëpp di ñaan euh, monsieur le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mu jóg jàmm ak salaam euh, wér ak jàmm moom it ndax yéene rek la amoon ne candidat ci réew mi candidat yi bokkoon jàllunu yàllaa ko dogalul waaw destin moom ku ko natt ci sa bopp rek yéen a ngi déglu waxtaan Amadou Ba ak benn télévision fan yi ci destin ak fa mu jaar ni ko yàlla dogale combinaison yi yàlla ak la lay xew ëllëg moom rek moo ko xam waaw basiru jomay fay naam jàmbaare loolu ci parti bi waaye kenn gënu caa jàmbaare ousmane sonko mu daj ca lu ne tey ji xëy na ñun ñëpp wala ñu ànd ak moom doonañ xalaat ni bu falu di am que jiitu la yàlla ni déet ki ci topp la wala et cetera yàlla du mu dogal rek mooy am waaw Euh, kon di nangu ay dogalam waaye lépp rek euh, yàlla na doon njariñu Sénégal ndax c'est plus important que mi doomi adama yi ndax ñu baax rek a jiitu ji nag waaw ñu baax rek a jiitu ji muy ci wàllu diine ji ay wàllu yu jiitu ji nañ di ci wàllu xam-xam waaw Sénégal moom il a connu euh, beaucoup de savants ñu ngi tudd sangor nañ tudd Cheikh Anta nañ tudd keneen kon xel mu rëy jaru fay jaay ñu yendu ak jàmm